suñ ñëwaat ngir noo ngi dem te dun dëppaat amaana dig bi jege nam aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير خلقه أجمعين بكتلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغلين دي نيو تا نمو غنى للإسلام دي تي جيتل سنو كليفة يتي جتاي دي تا دي لين زيار تا ورما جي غنى مرتس mbokk yi ni ñu ko baaxoo defe mu di fàttalante ñaaxante soññante ci bu ñu dajee daje yu mel nii moo tax ñu yëkkati sunu kàddu kàddu yi nag waxtu wi xat na xam naa dañ koy tënk lu nu man ni ñu ko bëggee woon yaakaar naa duñ ko mane kàddu yi nag ñu di ko faral di yëkkati ngir di soññee rawatina nag ci bés bu amee nii solo te solo si foo ko natt weesu na ko bokk yi nañuy xalaat ñi waral bés bi muy waa barzaq nañu leen di xalaat ciy ñaan bés bu set ndax dara gënalu leen ko fa ñu tëdd waye nañu leen di xalaat tamit ci xamne lu yag yag dañu leen fekki ndax li leen fa yobbu duñu fi bàyyi amut yenn pexé ngir recc ci du bari alal du ka am katan du pouvoir du mbax du mbon ko meuna don ak no meuna mel bes dina ñew dee jël la yóbbu la nga fekki koo masa suul ak koo mas dégg ñu ne dee na ndax kullu nafsin daayiqatul mawt fii kenn du fi sax ñéppay dem benn benn kenn ku ne ci nun amoon nañu ko jege te gisatu leen muy waajur walla doom walla xarit walla dëkkandoo walla àndandoo dee di leen këf Ben ben, nan len yom ci bir souf ndax xam nga kagn la lay yow lu do xalat ne man na tay, tay lu do xalat ne bo tëddee tay ci guddigi man nga ngaa yow suba lu do xalat ne li ngay def man na baña a mu jël la ne de de na nit ci jamono bu ne ak ci nu ne laa taatikum wa illaa baxtatan ndax kat buy ñëw du la tàggu ndax xam nga ne ci lum la fekk rekk ca loola ngay dekkee ëllëg yowmal qiyaam sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yubaatu kullu abdin ala ma mata alayhi muy ci lu baax wala muy cob sowaan kon loo bëggut dee fekk la ca bu ko def mbokk nañu bàyyi xel dee ci mu bañ noo fekk ci dara lu yàlla gërëmut te ñu waajal gannaaw dee ci topp yàlla akub yonenteem sallallahu alayhi wa sallam di jéem a sax ci seeni digal lu nu man te xam ne kat loolu rekk tax suñu borom subhanahu wa taala sàkku na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun jaamu ko rek jaamu ko rek ñii ñuy ñaanal tey muy waa barzaq koo ci laaj tey xeeb na lum jaamu woon borom rëccu na lum ci jotu woon a def kon yow mi yàlla may ngay noyyi ba nëgëni bul neenal sa senn sa góorlu loo man bala ngaa dem di rëccu ne ñoom foo xam ne kat loo fa loo jëfut fii yónnee fa doo ko fa fekk te boo fa xasee dem dootoo delsi loo mën a duufale sab yóbbal war nga ko def bokki julit yi gannaaw loolu no ngi sunu bop te di leen soññ yeen tamit ci tombe bo xamne buñu bu ñu sañoon ñu di ko waxtaane bu set ci jotaay yi ak yi fepp fo xamne ay nit dañ fay dajé loolu moy lan moy suñu sunu suñu jamono ji bokki melna ne noonu l'islam bi mi ngi waji am beugam li ñi dund ci suñu rew mi léegi ci biir jullit ñi kenn musu ko gis xiro bi ak ngaayo bi xeebante gi ak waxante gi lu bon weddeente gi ak dëkkalante gi fu ñaaw te ñun ñépp di wuyo jullit ñu bokk benn buur mu yalla subhanahu wa taala mi ñu boole sak mom nu te bokku no kenn nu bokku kum yónni ci nun muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu bokk luñ ñu digal nun jullit yépp te ñu war koo jëfe muy wax yàlla tabaraka wa taala ak waxi mustapha sallallahu alayhi wa sallam ñuy alquran ak sunnas mustapha sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo bokk benn tool bu ñuy bayee ñenn ñu ne nag dañoo am aw waar wu ñu féete am jëwriñ ju leen ca jiite kenn ku ne bu fas yéenee aw mbayinam rafet ca lañu ko dooñ du talal lijjanti na moromam di baye ak ban façon ëllëg lay baye bokk yi wute xalaat ak wuute gis-gis naka jekk mi ngi fi mësutee jóg waaye mësuta tax kenn di doya dal xalaatu moroomam wala gis-gisam ci diine ji ndax kenn ku ne na mu gën a rafete rek la doon wër te yàlla rek a tax borom al madahib al arbaa wax nañ ko ba muy imaam abu hanifa imam malik imaam ashafii imam ibn hanbal yalna na leen yàlla dolli ngërëm li ñuy wute wute ci yenn gis-gis yi ñoom ñépp a war malante woon kenn ku ne kenn ku ne nangul moroomam la mu ndax ku ne ci ñoom la mu nekk ca lay wu dëgër wu ko ca tàbbal téye ca ci ñoom dundam ci xam amuñu woon janeen yitte amuñu woon janeen te àdduna taxut woon daraje àdduna taxut woon alali àdduna taxut woon waaye ngir gindiku ak di gindee te jëm yàlla ji rek tax kon koo ci topp ci ñii rek yaa ngi ci dëgg ñàkk bokk ak sa morom fu ngeen féete bu mu la tax a na muy defe ndax loolu mooy ñàkk a wormaal gaa yu baax yooyu ñu tudd te ñu mat a weg lañ nag ñu mat a wormaal lañ bokk yi ab turuq as-sufiya yi ñu miin fii ci sunu réew mii muy ñu topp ak cheikh abdul qadir al jilaani muy ñu topp ak cheikh abul hasan al shadali muy ñu topp ak cheikh ahmad al tijaani muy ñi top cheikhuna al cheikhul xadim yal na leen yàlla doli ngeerum ñom ñep ñom ñoñu ñax nga xamne ño taxawal yoon yoy genn djublu rek lañu am te ñoko ko bokkule muy bëgg yàlla jóg jëm ci jaare ko ci alquran ak sunna Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bëgg yàlla googu yi nag moo waral ñom sunu sang su tedd soosi seeni talibé ñom ñep muridullahi lañ leen da woyé bo démé seeni téré fek ko ca ñoom ñëpp seenu dund dañ koo joxoon yàlla di ko liggéeyal ci diine ji di ko liggéeyal ci jaam ñi di xiirtal nit ñi ci yàlla seen borom di leen ca wamat jame ko nag ci alquran ak sunnas Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon ku leen gën a kennal yàlla amut ku leen gën a wéetal yàlla amut ku leen gën a màggal yàlla amut amut kenn ku leen gën a nangu ne yàlla moom jaam ñi mo leen sant ñu jaamu ko to mom rek a yeyoo jaamu ñoom liñ da digal ñi aju ci ñom ak di ko biri seen mbokk julit, moy ñu ragal yalla jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara ta jaar ci tanki sayyidina Mustafa sallallahu Alaihi Wasallam, te li nak bokki moy ak julit kon ku ci top kenn ci ñooñu da nga ko wara jappé sa mbokkum julit bokki julit kenn ku ne ci non yalla digal nako téré nako kenn ku ne li ko war kon mooy mu seet boppam njëkk ndax li ko yàlla digal lépp matale na ko wala déet ndax li ko yàlla tere lépp bàyyi na ko wala déet jéem a matale li la yàlla digal nag di jéem a bàyyi li la yàlla tere war na laa doyub liggéey sëkk walif di lu ñutu ak a jéebaane diw jëfewu ndigali yàlla yi bàyyiwu tere yàlla yi diw ni muy doxe ci diine ji nii du nii kenn ku ne ay wartéefam diggam ak boroom bu ca nekkee dina tënku ba du tal dingat ak ŋàññe mbokk yi yàlla dafa bind te yemalewut maye te tolloolewut wuutale daraja yi lool ak tolluwaayu xam-xam yi ñii mu nëbb leen ñii mu fësal leen moo tax maandu ci li la ump di lu war li war a doon sababu sàkk xam-xam nag mooy gindiku njëkk nga xam ne yàlla dala wàcce àdduna digal la tere la nga war a xam lu lim la digal ak nokoy defé xam lu tamit lim nga tere ak nokoy koy moytoo te jëm ko matale wayé xam-xam defu ko sak ngir werante wala ëppalante ko wala wane ne xam nga te kat wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim loko bari la bari la rek amna ko ku ko ëppale ne dégg bari gu bu fess du def bruit li ëpp solo rek moy di jëfe sa xam-xam bokki werante gi diingatante gi weddente gi day waral duñu mëna ànd duñu mëna bolo duñu mëna benno ta dafa bok ci ndigal yàlla yi akub yonentem sallallahu alayhi wa sallam ñu benn la suñ bopp ñun jullit yépp ta yàlla rek bax wa atasimu bi xablillahi jamian la tafarraqu mum la suñ borom subhanahu wa taala wax kon lépp lu ñuy teqale war nañ koy daw kenn ci nun matut ànd gi bolo gi benno gi ci lañuy motulende ku bedd ko rek néew doole moo tax sallallahu alayhi wa sallam nenu aleykum bil jamaa fa innama yakulu dibu al qasiyata min al ganam booloo moonu war ku ci bedd ko rek seytaane man ko kon boo bëggee mucc bennool ak say bokki jullit ndax till gi gàtt bi génnee moroomam beru lay ayibal lii tax nga mucc nag boo tàbbee ci mbooloo bi mooy ne booloo gi yërmande yàlla la buñu bolo yàlla day soti yermande ci nun sallallahu alayhi wasallam moko wax al jamaatu rahma bokki jullit yi setan ken kenn di jaxase lenn yi àdduna tamit waruñoo tekkale ndax ay bokk lañ ta mbokk deug moy sa mbokk julit innamal mu'minuna ikhwa yàlla minu bind moko wax ay bokk nak waruñoo xiro waruñoo ngaayo waruñoo añanante waruñoo yenente ay dano wara benno jappo bu dëgër tey dimbalante mbokk yi bu ngeen xoolee yu metti yi xew ca sunu bokki jullit yi ca Palestine bu dee wéy ba nëga ñàkk benn jullit rek moo ko waral loolu rek exemple la waaye bu jullit yépp bennoo woon ba doon wenn say di dimbalante te yàlla tax ku ci noonu lislaam bi nar laal dina xalaat la ko cay fekk muy jullit yépp jógandoo jàppale seen mbokk ci wane seenu naqar ci wax ak ci jëf bokki waru ñoo nono ñoo bokkum non ñun jullit yépp ñoo seetaan tamit ñu di ñu sunum non moy ki xex l'islam ta non bobu bu sañon duñu bennoo mukk ngir mu man di amu bëggam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax nañu sunu mbokko nu wara mel mune mathalul muminina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithla al-jasadil wahid ida ishtaka minhu udwun tadaaa lahu saa'irul jasadi bi sahari wal humma jullit yi ni ñu war a mel ci seen biir mooy bëggante lool yërëmante lool ñeewantente lool ba àgg ci mel ne yenn jëmm ñoom ñépp ndax jëmmi nit ki bu ca benn cër dee metti jëmm jëpp a ko yëg li mu bëgg a wax rek mooy li ñu war a ëmbalante ci suñuy xol ci cofeel ci yërmaande ci ñeewante war naa àgg ci ku ci am naqar nga bokk kook moom ku ci am bànneex nga bokk kook moom loolu di wund ba tey ne sa moroom mu ci yàlla defali xéewal nga yéene ko ko te doo ci yéene kenn mukk lu bon lii dëggal loolu ba tey mooy li sallallahu alayhi wa sallam wax ne la yuminu ahadukum xata yuhibba li axihi maa yuhibbu li si kenn ci yéen du gëm yàlla dëgg fi ak bëggalul moroomum jullitam li mu bëggal yi boppam kon julli dëgg li mu bëggal boppam da koy bëggal mbokkum jullitam kon sa xol bi boo ci ëmbalee sa mbokkum jullit lenn loo xam ne yéene ko sa bopp sa ngëm yàlla des na dañoo war a bëggante soppante wóolante yéeneente jàmm bennoo di dimbalante jàppante bu dëgër nag sallallahu alayhi wax na ne al muminu lil mumini kal bunyaan yashuddu ba'duhu ba'dan mu ne jullit bi dafa war a jàppante ak moroomum jullitam ba mel ne ni birigi tabax bi jàppantee ba tabax bi taxaw taxawaay bu dëgër bokk yi ku la digal mbir ku ne nag tere na la sofaan ba kon sallallahu alayhi wa sallam tere nanu noonoo tere nanu teqalikoo tere nanu xàjjalikoo te képp ku jëfewul li yàlla digle moo ko yónnenteem sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwoo li ñu tere faw nga dajeeg loola naqari bés bokk yi am nasaraan dafa waxoon ne si chacun balayait devant sa maison le monde serait propre bu kenn ku ne bale woon buntu këram rek adduna bépp set li ma bëgg a wax foofu rek mooy kenn ku ne na benn la ak njabootam njëkk borom njaboot yi bennoo rataxal digënté yi di demlante ak a jëflante jëflante bu rafet seeni njaboot roy leen ci loola kilifay diine yi kilifay diine ji ñoom it jappo di waxtaan déggoo baña réro nawlonté nak nawlonté bañ a xeebante yëkkateendoo di tegandoo ñi aju ci ñoom roy leen ca loola kenn ku ne nag ci taalibe yi jàppe kilifa ak moroomam ne kilifa ak boppam bokk yi fii ci sunum réew koo fi gis rek am na ci ku mboot moo tax kilifa yi bu ñu booloo woon doon wenn say te yàlla rek tax tey diisoo li ñu bëgg ci réew mi rek ay am waaye bu ñii dee fas ñii di fecc dara duma sa jàppaloo